Assalamualaikum mbokk yi salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokk yi nga xamne yene yéen a seetaan Hann TV salaamaaleykum yene ñi nga xamne yene nek birim rew te Hann TV nekk seen télé tey jii yegg fi nga xamne moy yarah kapa ñu gën ko xam ci endroit suma yexé en endroit nak xel yëpp dina dem ci Weuz jambar tay mom la dalal ngir fas waxtaan ak mom waxtaan ak mom ci lamb ji nga xamne mom la doon bëre bi paase ak Kogna 2 fële ci stade te mu daan ko jël bu set wicc làmb jooju la ñuy waxtaanee tey dugg séem ak nu mu bëree combat bi ak nu mu def combat bi wër jàmbaar ñu ngi lay nuyu. salaamaaleykum Ma Omar ñu ngi lay ziar di la nuyu di nuyu bépp téléspectateur Hann TV di nuyu ñëpp di nuyu waa Yarax gi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp di leen ziar bu baax a baax di nuyu sama waa koñ waa en trois du nuyu lu ko dalee Kasanka kipp jaara waali mbaxal waali daan sanci cafétéria cité maris Bel-Air montagne di leen nuy ñoom ñëpp xam nga di leen ziar du nuyu sama waa dëkk waa ngaay mexe li ko dalee euh, angal ba xam nga ba angal ba ba koñ Baye Malick Fall waaw di nuyu borom jakarta yi fa nekk ñoom ñëpp ñoom Pablo Fall di nuyu mareyeur yi mareyeur yaraax yi mareyeur yi nekk fi ci àdduna bi yëpp li ko dalee yaraax tëngee yaraax tëngee caaroy mbuur yoof kayaar joil xam nga ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu bu baax a baax a baax ak mool yi xam nga di leen ziar bu baax Weuz jóge nga ci làmb ju neex làmb ju am solo làmb joo xam ni macha allah sa adversaire ku mën a bëre la tey nga daan ko jël bu amul benn werante tey boo ñu doon defal jàngat bi ban jàngat nga ñuy defal. waaw gin maanaam dañuy def dañuy jiite baatu alhamdulilahi rabbil alamin parce que jàmm su demee doon sabablu di ñaan borom bi lenn lu mu doon ut yàlla su ko mayee am na droit taxaw sant ko te yàlla moo ne sant leen ma ma dool leen kon ñun ay jaam lan rek dañuy sant yàlla bu baax a baax ci ndam li ñu may. yàlla mi na xañoon tey moo ñu kàttanal doole ñu tey ba na am ndam te defaral ñu ko loo xamante nii may nañu ndam xam nga ke tamit defaralu ko loo xamante nii xañ na ko waaw ñun ñoo ngi santaat yàlla bu baax di ñaan yàlla yàlla na ndam ni jig ma moom tamit defet bi yàlla na doon yàlla na doon raxasuwaayam waaw su amaatee combat yàlla may ko ndam préparation yi métti woon na trop xam nga ci komba bi muy si wàllu entraînement muy si wàllu organisation métti na taroon na mais gars yi seetaanuñu quoi jàpp nañ si bu baax a baax a baax ñu dugg si lijjanti ko yàlla kàttanal ñu xam nga parce que làmb ji bi ñu ñëwee simeeku kenn néewul àccam ñëpp xam na ni Weuz Diambar bi kafoo liggéey na ci combat bi te fonk na combat bi di gërëm suñu suñu coach yi coach yi dañ see jàpp bu baax a baax xaw na ñoo rey si entraînement bi waaw moom bëre nañ si yoon ñu teg ko ci yoon arbitre soufflé ma wàcc dox ci kawam mu reculer ma def ndànk reculer cookaas mu daw dugg ñu jàppante mu dugal ko ku dugal ko ay épercule dugal épercule jàpp xëcc waaw yàlla dooleel ma dóor ko benn mbot mu jeex. daw jàpp mbot. doo daaneel ko fan la la làmb ji mën a yóbbu Weuz. waaw làmb ji daanaka maanaam daf may delloo dafa am benn cër bu ma amoon ci làmb xam nga xëy na tolof tolof ñëw. ñu ne faaw ñu jël combat rectifier loolu maanaam combat bi mën naa ne mënuñoo yóbbu fenn xëy na rectification la woon ak bor bu doon fay suñuy supporters ak képp ku ñuy bégee waaw lamb mooy suñu kanam xëy na li ñu dese moo gën a métti lool te moo gën a bari li ñu passé xëy na dañuy delluwaat si entraînement yi rek dafa mel ni defuñu dara waaw taxaw xam nga xëy na tegaat fi mu nekkoon ci lamb combat bi delloon nañu fa muy suñu ay suñu ay morom. waaw ndax ndab moom maanaam làmb lenn la dafa baaxoo benn daan dem daan toog loolu la rek waaw. Weuzi dama bëgg nga xool caméra bi jéey production mi ngi taxaw di ma xaar kan nga bëgg jéey tëgg ko. non ñoom maanaam nan nan laaj amateur yi rek. Hmm. waaw wos Diambar moom ibil na porte promoteur yëpp ndax samay bagage daal jafewul. jéey taxaw na waaw noonu dem xool adversaire boo ko neex rek mu ñëw ñu waxtaan waaw. jeex na gisoo ni ci làmb jooju am na erreur boo xam ni moom nga def. waaw avant tout làmb moom mën naa ni mën nga def commencement ba ba fin te doo def benn erreur xëy nit ñi ku si nekk ak sa gis-gis rek ñëpp mënoo def ñëpp ni impact mën nga def ñu ni da ngaa def erreur mais après loolu lépp ay jàngat la. xam nga parce que biñ paree si làmb ji xoolaat na dinañ xool erreur bi nu def jàngat si bu baax a baax xoolaat ci erreur boo xamante ne nii moom la suñu adversaire def ban daan ko loolu presque si lan doon gën di xool xool moom erreur yi mu def ñu xool pour ëllëg ñun ñu bañ a def erreur bi mu def ban ba daanu si waaw doon na si jaar lam moom xëy na mën a mën ko daan sa def erreur waaw xëy na mënul ñàkk quoi ku nekk gis-gisam noonu la. Weuz tey ñu gis. fi nga dëkk muy endroit nga xam ne yaraax yëpp ñu ngi sa ginnaaw loolu d'accord nañ ko mais ñu gis endroit fief bi nga nekk nii gars yi même ba ci xale yu ndaw yi sax da gis ñëpp di fu ñu la romb dañuy daw di la lonk di la savane lan mooy sa euh, diggante ak ñoom. waaw sama diggante ak ñoom maanaam làmb boolewu liyewuñu ñu quoi nekkul làmb moo tax ñoom ñu bëgg ma xam nga ñun ñëpp daanaka ay mboq lan ay dëkkandoo lan te dëkkandoo yàlla dafa am lu si wax jàmm rek moo si moo si mooy mooy li si mooy li si war a am. moo tax ñoom ñëpp billaay wallaay aw ma seen fay ñu si bari ñoom maam du duñ ay supporters. xam nga ay mbokk lan ñii ay mag lan ñii ay frère lan ñii samay rax lan xam nga du làmb moo xamante moo ñu boole. ñoom ñëpp samay nit lan démb tey soog a ñëw bi ñuy bi ñuy jàppante maanaam duggoonu sax si làmb xëy na ñoom ñoo ma poussé ba ma dugg si làmb xam nga ñu gën ma dooleel xam nga moo tax. affaire bi day rafet rek day mu day day mus rafet su ma te su ma nekkoon si ay sans defet tey ñoom dañuy ñëw gën si jàpp ñoom ñëpp surtout waa yëngal baaraay yi xam nga ñi mooy ñiy liggéey si kaw kee bi booy dayaa yi xam nga booy kajoor kajoor yi fa nekk saalum saalum yi ñoom ñëpp marieur yëpp di jël nuyoo bi di ko teg si loxo Bara Ndour muy marieur yëpp ñoom bandi màgget bandi xam nga muy yëngalkat yeeg marieur yi marieur u gaalu kees yeeg yëpp maire yi fii nekk muy maire yi ñëw fii di jënd jënd ñoom ñëpp wallahi ñoom ñëpp ama bëgg seen bopp barki alxuraan aw ma seen fay muy yëpp du waa Hann Trois xëy na fii la yàlla dafa dogal ni fii fii laa soxee ko muy fii laa juddoo fii la samay waajur ne mais man yarax gi yëpp laa dëkk ñëpp yarax gi yëpp représenté ñoom ñëpp ñoo ma bëgg wax dëgg yàlla waaw ñoom ñëpp yarax ngay représenté yaraax am beneen jéego ci àdduna bi tey ñuy dégg yaraax feneen yow nga jël porte drapo yaraax ne da ko porte di ko yóbbu ci Sénégal àdduna bi yëpp pour ñu xam ni yaraax existé na yow lan mooy sa force ba nga mën a gàddu li nga xam ne mooy drapeau yaraax pour yóbbu ko fenn fu mu fu kawe. waaw yombul yombul maanaam nga doon jeune xam nga ngay génn maanaam di représenté benn gox boo xamante ni ñëpp yow la ñuy yow la ñuy tiitaroo maanaam ci wàllu làmb am ni képp ko dëkk yaraax soo génnee dañuy bëgg maanaam ngay am fier ni sunu koñ am na mbër xam nga fépp foo mën a dem mën a siggi moo tax ñu yaree suñu bopp muy suñu wàllu entraînement beeg yëpp xam nga ndax bëgguñu benn doomu yaraax génn ñu naan leen ko seen mbër mi nii seen mbër mi naa xam nga bi ñu amee ndam ndamu yaraax la lan la ndox doomu yaraax bi képp ku dëkk yaraax dañ lay woo félicité la ni la félicitation ndam li ñun ñëpp ko bokk xam nga dañuy am contentement bu baax a baax a baax suñuy génn jël drapeau bi drapeau yaraax génne ko yóbbu ko ndax moom moom la ñuy représenté ni yeneen mbër yi di représenté seen quartier yi ñu leen di dégg fu ne ñun noonu la ñuy représenté maanaam gox bi dëkk manam damay dégg mag ñi di wax naan euh, sën bu nekk la fay ñuul moo di fam gox bu ne la fay ñuul moo di fam waaw ñun ñun ñi ñii ñun ñun lan am barki sayidina mohammed ñoom lijjante sa ay mbër yu mag ak lii nii mbër yu mag li ni ni seen combat ñun lañ koy ñun lañ koy te lañ koy comme mbër mu mag combat su amee gars dañuy seen lépp dañuy seen activités yi seen liggéey xam nga nekk si ba làmb ji passé ñu si ñu soog a delluwaat seen activité xam loolu yombul maanaam événement lay doon ci biir dëkk bi day xumbalaat gox bi neexalaat ambiance bi jub xam nga ñëpp kontaan xol yi doon benn keroog bi ma dugg see ma gis ñëpp génn di ñëpp kontaan ambiance bi doon dama ni oh xoolal rek ndam dafa neex maanaam nga dem uti ko indil ko sa gox pa mère mag ndaw ñëpp génn ñëpp di bégee loolu dafa neex maanaam féexal seen xol loolu dafa neex maanaam bor la woon rek bu ma ameel waa yaraax te ñëw naa fay leen ko. bor la woon boo ameel waa yaraax Weuz tey ma gis marieeru yaraax yëpp nekk sa ginnaaw lan mooy secret boobu. waaw marieer yi moom man aw ma seen fay mën naa mën naa ne man man man si ñoom laa juddoo parce que sam papa marieer la képp kuy marieer xam na sam papa marieer la daanaka man tamit ma làmb moo ma yàqal maanaam marieer bi ma ndax man tamit doon naa def marieer nga après làmb moo yàqal loolu noonu. mais mareyeur yi si mareyeur yi ci àdduna bi yëpp xam nga benn mbër la na am muy man ñoom ñëpp ñëpp ñëpp a si jàpp xam nga waa Tëngéej ñoom Dame jaay ay Ino ñoom ñëpp ba si Yoff ñoom Matar Nguer ay ñoom Siri Diagne xam nga papa ma Zal Diagne mareyeur yëpp ñoom Saata la Mara yi fi nekk yëpp barke alxuraanu karim aw ma seen fay ñoom ñëpp a si jàpp muy jaaykatu glace yi ak yëngalkat yi xam nga ñoom ñëpp billaahi wallaahi dañ see jàpp mbokk yi yéen ko déggandoo dañ see jàpp wës jàmbaar biir yaraax ak maréer yaraax yi ñoo ko jàppale saataala maa ngi lay gërëm di la sant nit ku baax nga ndax xam naa la démb tey soog a ñëw kon bu wës waxee ni yaa ngi ciy jàpp yaa ngi ciy jàpp jërëjëf saataala wës lan ngay tàggatoo waaw avant tàggatoo bi xam nga parce que yaraax dafa tolloon foo xamante nii maanaam ci wàllu làmb mu xawoon tar tuuti mu xawoon metti tuuti tuuti xam nga mu xaw a fees soxe mu ci wàllu sport bi xam nga maanaam danoo génnoon si ay sorties yàlla yàlla weddi affaire yi xawoon calme tuuti Moussa Ndoye sunu mag génnoon si xaw sorti xam nga xaw a ñax moom tamit ñu koy ñaanal yàlla yàlla aar ko sàmm ko xam nga defal ko lépp lu mu bëgg ci làmb yàlla may ko combat may ko ndam moom tamit jàpp na si bis bi bu baax a baax a baax a baax xam nga di di wax tamit xam nga ñun waa yaraax ñëpp nañ ñëw jàpp parce que yaraax amuñu lu dul ñun ñun tamit amuñu lu dul yéen muy

kon nag heure bu ñuy génn war nañu ñu épauler dooleel ñu jox ñu drapeau bi ñu dem indil leen ndam li xam nga parce que war nañ di si jàpp bu baax a baax a baax a baax waaw parce que yombul quoi làmb yombul parce que xale yi daanaka ñoom ñëpp dañuy bëgg di dem stade xam nga te seen moyen demeewul noonu war nañ di si mën a ñëw di si jàpp xam nga xale yi di dem ñuy kontaan ñun loolu rek leen bëgg gars yi nañuy ñëw koñ bi di am ambiance muy neex loolu day dundal gox muy wàllu làmb muy wàllu joow gaal ndax ñun dëkku tefes seen dëgg xam nga culture wi yëpp dafa war di dox mais loolu war nañ si di dugal seen loxo parce que loolu rek moo mën a doxal quartier muy wàllu culture euh, sport yooyu moo mën a moo mën a dundal làmb moo mën a jox tur gox moo mën a mën a dundal quartier nañ siy jàpp bu baax ndax xale yi bëgg nañ quoi xale yi bëgg nañ te képp ku fi nekk war nga xool li sa jeune jeunesse dëkk bëgg nga fekk leen si jàppale leen loolu message boobu dama koy yeggee pour au nom de tous les Yarakhois pour ñu ñoom ñu jot si quoi waaw di gërëm bu baax a baax a baax a baax a baax waa Yarax encore une fois di gërëm benn jigéen boo xamante ni maam kan loo setu badaloo bi kooku dafa baax kooku dafa baax ci man lool lool lool di gërëm Papi bu baax ñoom dañ fay jàpp xam nga di gërëm képp koo xamante yi nii muy ñaan muy doole poos muy muy muy muy yéene bi nga amoon ci man jox ko ñëw def ko envers man xam nga maa ngi lay sant bu baax a baax a baax muy muy nga muy loo def te yëguma ko ak loo def te yëguma ko yëpp xam nga te maa ngi lay ñaan yàlla defal leen jàmm di ñaan yàlla yàlla na yàlla def jàmm muy si yarax bi ñu dëkk xam nga def fi jàmm tàppe xol yi ñun ñëpp ñu doon benn dañuy wax réeroo amul rek ñàkk waxtaan moo am ñun ñëpp ñoo far xam nga ñun ñëpp liñ bëgg mooy ndam di gërëm gars yi ñoom ñëpp xam nga di gërëm sama gars yi li ko dale sama waa dëkk waa Ngaye Mékhé di leen gërëm bu baax a baax Pablo Fall Talla baay Fall Ahmed Baye Daaru ñoom laat xam nga ñoom City Class xam nga ñoom ñoom Njaga Njaga si borom City Class waa Njóob xam nga waa jamono xam nga waa ay see jàmbaar yi fa nekk angal bi xam nga waa maam ko caada gi sama doom baay yi fa nekk ñoom Ibra ñoom Ahmed sama doom nday ñoom bind si duudu naan la Ah, Sofia xam nga sama tante ñoom tante Aminata xam nga ñoom bin ñoom euh, di leen gërëm bu baax sama mbokk yi fi nekk yépp yépp maa ngi leen di gërëm di nuyu mention spéciale xam nga sama gars yi nekk fii nii di ko dee Saataala Mbaye xam nga ñoom dañ ñoom bañ jàppee ba tey bàyyiwuñu xam nga Cheikh Diouf Ousmane Fall Mara Fall xam nga ak euh, Khadim xam nga Malick Ngom Sadd c'est-à-dire ñii dañoo si combat bi billaay wallaay ñii dañoo sonn si combat bi bu baax ay ñoom Babacar Ngom am nga ñoom Babacar Ngom xam nga ñoom Mansour Dioum xam nga ñoom ñëpp dañoo jàpp si combat bi ay ñoom Tina xam nga waa koñ bi yëpp yëpp ñoom seen Abdoulahat Dieng xam nga muy waa yëngal baaraay waa kër Abdou Diaw ñooñu ñëpp ak waa kër waa kër Zal Diagne yi ñoom Siri Diagne si Diagne moom kooku kenn la si man billaahi wallaahi xam nga day metti sax des xam nga ni mooy loolu moom yàlla laa koy bàyyil mook ak ñoom ñëpp su may nit lan ku lim ju lépp lan xam nga parce que non faaw nga gars yi see jàpp ko te fii mooy exclusivité bi te xam nga rek ku ko def ku ko wax la bëgg gars faaw nga leen ngay ñi siy jàpp damay wax ni ñii dañ see parce que affaire dafa taroon trop trop combat bi dafa taroon si man trop mais dañoo ñëw taxaw ne ma ñoo ngi sa ginnaaw xam nga billaahi waaye écrit ba ñoom boogaa Pierre Vieux Seck Africa Africa di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal xol làmb làmb wuyu si ko mu am combat yàlla may ko si ndam ñu ñoom viabo xam nga ñoom Souleymane bi sa ne bi bi nekk bitim réew di ko ñaanal jàmm xam nga waa AJPH waa kër Sidibé Sidibé yëpp xam nga di di di nuyu prési xam nga père Mbita di ko ñaanal yàlla fëgg boppam mu am jàmm di nuyu suñu grand frère yi nekk ñoom Serigne Gueye monsieur Galas waa ma mafia Maroc bi di leen nuyu ñoom ñi fa nekk ñoom ñëpp xam nga affaire yi daal kenn kenn kenn kenn kenn bawuñu kenn kep ko muy pas marié rek ñëpp ñu ñu nuyu di gërëm ñëpp waaw di leen wax Weuz de mu ngi leen di nañ ci yeen xalé yu ndaw mak ndaw goor jigen suma di nuyu sama gaay combat bi rek nuyu na la TV waaw di wax encore une fois manam di leen waat manam waat maanaam gox benn benn si ñëw fa xam nga di fësal loo xamante nii muy ku nekk ci li ngay yëngu dinañ ñëw xool nemmeeku la xool si li ngay yëngu génnee ko fësal ko nit ñi xam ko information bu fi am dinañ dem ñëw wan wan wan ko waa gox bi ni leen lii lii moo xewoon te doo génn doo dem fenn sa téléphone ngay jël xam nga liir xool li xew si dëkk bi yëpp di leen ñaanal jàmm di wax nag waa Yaraax yéen yéen a mën a sàkkule maanaam ndimbal dafay fekk loxol borom ñuy ñëw di abonné si ci lii bi képp ku Yaraax waa même loo gis rek war nga si mën a jàpp xam nga soo leen ñëwee ku seetaan vidéo bi nga dugg xam nga abonné ngi si suuf lu xonk la rek ngay bës nga abonné si dóor cloche bi vidéo bu ñu dugal dina waaj sa téléphone nga seetaan ko gars yi jàppalante waaw affaire yi jëm kanam loolu kese la. jaajëf sama gars yi maa leen ko diggoon. ñoom bak borom moto yi. fàttewoo leen wax nga leen. ñoom borom moto yi non ñooñu dañ see sonn convoi bi ñoom ñoo ko seeko. waaw ñoom bak ñoom bak Bakary waaw di ko teg si Bakary bu baax a baax. na waaw kon borom moto yi gaa yi nuyu nañ leen. Eh, saataala sama jën gisaguma ko amaguma jën marier nga sama jën dama fekk si wóos dool teg naa ko sa jeex na léegi gars yi mag wóos jàmbaar la woon ak Hann TV waxoon naa leen ni mbir mi Hann TV la fa la lépp neex fa lay neex. fa lay xumbe fa lay daganee eh Aliou moo nekkoon ci caméra bi ah ma toogoon nag sama jigéen nekk ci maquillage bi mais léegi nag maa ngi leen di wax ne dig daje ak beneen émission ak Omar borom Frapp yegg si na e gars yi jër ngeen jëf ba beneen yoon ak beneen émission borom Frapp na.